أردت بسطرها بلا سفر لخدمة المختار أفضل البشر taarix ba mooy junne ki ñetti téeméer alfakaat ak yat lim bi lee wóor su ngeen ma dégloo tey ma dalu yeete ndax ñuy nelaw seen xol yi dalu seeti kuréere mbir laaj ka xam lu mu xamul audu billah bismillahi inna waliyallah xasbiya allahu wa ma tawfiqiya illa billah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa mawala bokki jurit yi bokki talibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellusiwaat nañu fii ak yéen ngir ànd ak yéen jataay bi ñu baax am ak yéen muy njàngalem Serigne Touba di ko waajale màggal gi ànd koog 2STV te mu tey bi nag mi ngi jëm ci sëriñ tuuba ak dëkk bi di tuuba sëriñ tuuba ak dëkk bi di tuuba dëkk bi di tuuba nan la ko sëriñ bi fonke woon ak yan digle la digle woon ci ki koy dëkke ak ki fi ñëw ngir ziyaara yan comportement la war a am ak sëriñ bi naka la sañc dëkk bi ak nu mu wax ne moom la ko sañce ak ban programme la tëral ngir sañce ko dëkk bi ba ku fiy ñëw war a war dëppoo ak tëralin woowu nga xam ne moom la tëraloon ci dëkk bi ñu di ko ànd ak nag sëriñ Moustapha Diatara moom bi nga xam ne moom lañ dénk maktabatu Cheikh al Xadim muy kàggu sëriñ Tuubaa gi ñu ànd kook moom déglu euh, waxtaan yi nga xam ne def na ko ci xormay Tuubaa wala aadabul Madina euh, ñu def ko nag yaari xaaj benn bi jëm ci ku sañcub dëkk da nga tudd xam-xam rawatina sëriñ bi moom bi nga xam ne bi muy sanc dëkk bi dafa wax ne xam-xam la ko sance ba wutal ko programme tomb bu njëkk bi dana jëm ci yitte ji nga xam ne joxoon na ko xam-xam boobu ba sance ko dëkk bi wutoon ay jàngalekat teg ko fi ak ñooñu itam nañ lañ meloon ñoom ci seen dëkkiin ci dëkk bi ak xam-xam kon sëriñ Moustapha dara la nu ci àndal incha allah. su ngeen ma dégloo tey ma dal tey ndax ñuy nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul tomb bi nga xam ne tey moom la ñuy waxtaane mi ngi jëm ci maanaam ormay jëmmi dëkk bi nga xam ne nag ñëpp ci lañ jëm si ñuy màggal seeg ñëpp fii ci Tuuba ci dëkk bi nga xam ne Seexul Xadiim radiyallaahu anhu ko sëncaloon boppam sosal ko boppam fonk lool am fu mu ko teg ba ñi nga xam ne ña ko jiitu woon di ay boromi xam-xam xam ngeen ne bu ngeen demee ci alfikrul islaami wal fikrul xarbi da ngeen gis ay ñu bare bari ñoo xam ne bokkoon na ci seen xalaat ñu sos ab dëkk ba gis ngeen ku mel ni ñooñu nga xam ne mooy falaasifa yu jëkk yi liñ daan tuddee al madinatul fadila waaw maanaam te loolu lu jiitu sax lislaam la nan la ñuy fexe ba am cité cité boo xam ne li war a daje ci ab dëkk lépp dana fa daje moom rek lañ mas a gis koo xam ne xalaat na ab dëkk bind ko ne nii laa bëgg sama dëkk mel ba noppi nag taxqiq réalisé loolu moom ci moom la jëkk lu jiitu loolu lépp ku dul seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci madinatu munawara mu te loolu ab dëkk dëkk dafa nekk lu am solo ci dundug doomu aadama ndax dëkk mooy indi civilisation dëkk mooy indi taqaddum dëkk dëkk mooy indi al omran dëkk mooy indi lépp tey ñi ngi tudd ay dëkk yu mag ci kaw suuf ay capital yu mag a mag yoo xam ne bu ñuy joxe exemple ci àdduna ci rafetaay ak ci taar ci lañ leen di boole e, te loolu lenn warulu ko lu dul maanaam xam ne dëkk dafa am ay muqawimaat dafa am ay yoo xam ne mënul ñakk ci dëkk bu ci amul rek tuddul dëkk kenn mënu koo tuddee kenn mënu koo tuddee cité Cheikhul Xadim nag radiyallahu anhu bi mu ñëwee fii nga xam ne àll la bi mu fi ñëwee fekku fi dara ab àll la fekk ay garab la fi fekk ay mala la fi fekk mu fekk fi benn civilisation bu ko fi jiitu loo xam ne jiitu woon na ko fi mu ñëw fi e xoolal ko boppam fi mu nekk mu nekk loo xam ne suñu borom bi koy won wan na ko ne ko fii li ngay seet fi la ne mu xalaat ne dëkk bi ma soxla fii la war a nekk fii la mën a nekk mu jël xalimaam bind ni dëkk boobu bëgg war a mel lim bëgg ci dëkk boobu la fa war a am lépp mu bind ko ni nii laa ko war a mel nga xam ne bu fekkoon ne dafa nekk plan wala mu nekk kuriki bu ñuy taxawal day mel ni tey jii bu ñu ko wutaloon kuriki taxawal ko nii wala plan boo xam ne dañ koy mën a gis mu doon photo bu ñuy teg bët lenn lu nekk dañ cey mën a teg bët ne lii nangam la waxoon fii nangam la bëggoon fii nangam la bëggoon fii E, téere boobu mu tudd Matlabul Fawzayn Fawzayn boobu mu tànn baat boobu mu tànn Matlabul Fawzayn maanaam doomu aadama yaar rek la soxla ci kaw suuf dund goo xam ne day neex fii ci àdduna ak dund gu neex fee ci àllax doomu aadama yëpp jullit beeg ki dul jullit ak ñëpp kii nga xam ne gëmul sax àllaxira bëgg na dund gu neex fii moom lay liggéeyee moom lay xalaat moom lay def mu tubaab yeeg matérialiste yeeg ñi gëmul àllaaxira ñoom ñëpp nañ fexe ba seen dund neex fi waaye nag ngir mu neex itam dafal am yu laaj boo demee ci seen dëkk yi da ko wax xam ni ñoom ñi préparé nañ loolu sëñ bi nag moom moom Fawzayni la bëgg moom la bëggal itam doomu adama yëpp rawatina njabootam rawatina nag ku dëkk ci dëkk bi eh, mu fi dikkee Euh, li mu njëkk ñaan yàlla sant yàlla sax la njëkk a def euh, euh, yàlla mi nga xam ne may na ma ma dëkk ci dëkk boo xam ne lim digle lim digle te mooy ñu nekkal ko ci farata ak sunna yàlla may na ma barab boo xam ne bu ma fa ñëwee lépp lu ma doon gàllankoor ba loolu mënuma ko fii moom danaa ko fa loolu maa ko ci sant moom loolu la njëkk def kon mu mel ni lim fi njëkk a soxla gën ko fee mu gën koo ñor ci dëkk bi mooy ndigali suñu borom bi nga xam ne moom lay digle di ay faraidam ak i sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy fondement mu dëkk nga xam ne junj na ñépp ne leen loolu mooy li ma fi bëgg loolu itam man ci sama jëm bopp bi ma fi dikkee loolu laa fi njëkk a sant yàlla ci may gi ma may ma mën a am jotug man ko fee def te du am dara lu may gàllankoor waaw kon loolu ñun ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk ak murid yi ah ab junjëgoog bu bu bu foor boo xamante ne war nañ koo bàyyi xel xam ne dëkk bi moom li ci ëpp solo mooy jaamu yàlla jaamu yàlla fi jiitu moo fi njëkk moo fi mujj ku fi dikk war ngaa xam ne sa mission mooy jaamu yàlla ak loo fi mën a def loolu bi mu amee moo waral gis ngeen lim njëkk xalaat ci dëkk bi mooy fu ñuy jaamoo yàlla fu ñuy jaamoo yàlla ba mu fi xalaat laata xalaat fu fum dëkk wala fu nekk mooy fan la jaamukaay yàlla bi ñu di ko wax jàkka moom la njëkk xalaat fii awwal fikratihi fil madina mooy iqaamatu masjid fii ci fii ci Tuubaa kon loolu dafay won ne ne dëkk bi bokkut ak dëkk yu jëkk yooyu ak xalaati gaa yu jëkk ndax gaa yu jëkk yooyu yëpp seen xalaat boolewuñ ca woon ak jaamu yàlla woon nu dëkk bi di neexee ba ko fi nekk man fee nekk nekkin wu neex ah am fi kër yu baax am ndox am nangam am nangam am nangam yépp luy bànneexal bakkanu doomu aadama loolu mooy li nga xamante ne ñoom mooy li nga xam ne moom lañ doon xalaat waaye xalaat ca diine moom bokkutoon ci seen xalaat kon moom diine moo ci jiitu ci bëgg-bëggam ci dëkk bi kon loolu tomb la boo xam ne war nañ koo bàyyi xel bu baax lépp lu ñuy jikko ju baax yoo xam ne jullit war na ko làmboo nga làmboo muy rafet nooy dëkkee ak say dëkkandoo rafet nooy dëkkee ak sa njaboot rafet nooy nekkee ci biir dëkk bi ci yi nga xam ne mooy ndigal yi sëriñ bi digle woon ci dëkk bi nga fexe ba yow ci sa bopp nga jàpp ne yow mi dëkk Tuubaa moom war a nekk modèle waxuma la ci biir dëkk bi waaye da ngaa war a nekk modèle boo génnee ñu ne kii Tuubaa dëkk rek nit ñëpp am benn gis-gis bu ñu am ci yow ndax dañuy jàpp ne gannaaw foofu nga dëkk yow am nañ nu ñu lay xoole am nañ nu ñu lay bàyyee xel lu bokkut ak ku dëkk feneen. am na benn misaal bu ma ci joxe rek xale yu dëkk ci dëkk bi masoon na dem ziyaare ji benn dëkk ba ñu demee waa kër ga borom kër ga fonk fonk leen lool jox leen cër lool nee ba gën ci kër ga mu jox leen ko teraanga june mu defal mu defal leen guddi lañ fa ñëw eh, ba ñu demee ba tëdd ba reer ba tëdd mu ne waa kër gi ah am ngeen gan nit ñu bàyyi ko Tuubaa ngeen am te xam ngeen ni Tuubaa moom kuñ fa bàyyi ko eh, wàllu jaamu yàlla dana ko ñor lool kon man sama kër dañ daan yeew njël waaye xam naa ne tey danañ gën a teel a ndax ñii dëkk Tuubaa te France ci kër kon bala ngeen yeew na ngeen jàpp jàppukaay wanag yi ba ñoom bu ñu rek du ñu am benn jafe-jafe ndeysaan noonu la gisee waa tool te noonu la war a demee eh yàlla dogal noone waa ga teel a yeewu lool toppatoo toilette yi toppatoo ëtt bi defar lépp macha allah ah dikk toog di leen xaar jàpp nañ ne dañoo dañoo nekk ci waaj toog di xaar toog di xaar yàgg lool léegi mu bëgg ñi julli yëpp julli nañ ba noppi te ba nga xam ne léegi moom leer na nañ moom ñu ñu julli ñu julli ba ñu toogee ba jant bi fenk ñoom tàmmoon nañu tuuba lañ fi tàmmoon mooy naaje yow loolu lañ xam ñu fëgg bunt yi fekk leen ñuy xaram yeewooguñ te booba ay toilette yu nekk ci biirum néeg ba nga mën a suturaal sa bopp sax ba kenn du ci xam dara amul fokk nga génn ci biti <coughs> waaj kenn ku ne rek mel ni kuy nelaw rek ñëpp yi nelaw borom kër gi am kersa ndax li mu doon wax waa këram di leen ko jàngal jàpp ne ñii danañ mat Euh, ñu mat ay royukaay lañ loolu amut loolu nag lu muy wane responsabilité bu ku dëkk Touba Touba ku fi dëkk am nga responsabilité rëy ndax faw ñu xool la bët bi bu neexee ak bu la neexul boo ko yëgee ak boo ko yëguñ foo dem rek defe nañ ne fa yaa fay exemple yaa fay royukaay itam ndax mag mu toll ni Cheikhul Xadim radiyallahu anhu wax ne nii laa bëggee ko dëkkee ci sama dëkk nga dikk dëkk fa ba noppi meloo noonu ba keneen ku war a bëggoon mel noonu sax bu dikkee bu la gisee far bàyyi loolu loolo ñu ngi xew ci dëkk te loolu bokkut ak teggin yi nga xam ne ku bëgg a dëkk ci dëkk ku bëgg a nekk ci dëkk bi war ngaa mel noonu sëriñ bi digle ba noppi wala mu tere nga dégg ku dëkk Tuuba am fitu ñeme moom taxaw di dindi loola wala mu di ko woyfal te loolu day mel ni le Cheikh Mouhamadul Fadil waxoon ne euh, miin ñu ne ko ah ne ah miin day baax ñu ne waaw ah, mu ne lépp lu miin da ko yàpp te lépp lu waay yàpp dootoo ko dootoo ci jëriñu ak wér loolu la doomu aadama bi nga xam ne yaruñu ko jàngaluñu ko lu yàgg a gis ak ku yàgg a gis bu yàggee mu yàgg ñu ñàkk xam loolu it dal na nag ñu bari ñoo xamante ne dëkk nañ ci dëkk bi ñoo xam ne am nañ fitu ñemee wax loo xam ne ku dëkkut ci dëkk bi sax ñemewoo kuy nekk ak ñoom sax di leen déglu dangay dem ba mujj yàgg nga ne ah man de ñii wax dëgg yàlla li ñuy wax bu ma sañoon du koy dégg wala bu ma sañoon suma doom du ko dégg loolu mi ngi fi am de te loolu lépp bokkut ci ormal dëkk bi bokkut ci dégginal dëkk bi ndax loolu lépp yaa ngi yàq loo xam ne yaa ngi toj sëriñ baa ngi tabax nga yor sa marto di toj sëriñ baa ngi defar ngay xëy di yàq te yàq gi nga yàq wallaay tojoon tabax yu bari moo ko gën waaye toj jikko yi yaakaari nit ñi nga fexe ba yaakaar yooyu nga dindi ko lu ko gën a ñàkk lu ko gën a metti amul ci àdduna te loolu mi ngi am nit lu mu ñemewutoon wax loolu nit loo xam ne yaa tax mu ñeme koo wax waaye bu doon toon yow xelam du sa xalaat sax waxuma di ko wax te loolu lépp nag ah am na comportement yu nekk yu nit ñi nekkee ci barab bi te fekk loolu itam ñii fi am kon ku dëkk ci dëkk bi war a nekk misaal dangaa war a nekk modèle boo xam ne ci wàllu gune ci ma ko waxee dangaa war a nekk modèle ci diine am diine lool ba tey loolu it <laughs> mënuma cee ñàkk delluwaat ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne musta manqué waxtu julli te bu dikkee Tuubaa kër ga mu ne dañuy jàpp ne rek teraanga yi kooku mooy jox ko berndeel ko bu baax a baax su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñuy nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul jërë jëf bokk yi kon noo ko bokk gisandoo mu di waxtaan wu gàtt te solowu mu ñëw ak noonu ci euh, sanc gi sëriñ bi sanc dëkk bi ci xam-xam ak yitte ji nga xam ne joxoon na ko xam-xam wutoon ay nit teg leen fi te dara du dara doonul woon seen yitte lu dul jàngale xam-xam ak yar nit ñi ci xam-xam ak jaamu yàlla mu jaraloon ko itam ñooña mu fexe ba amul lenn lu ñuy def lu dul jàngale ak yare rek fexe ba lépp lu leen lu warloo lu warloo lu war seen digg moom loola dara bañ caa màngi ndax ñu bañ am jeneen yitte ju dul yar ak jàngale mu cité ci sëriñ daam abdurahmaan loo ca daarul alimil xabir cité ci itam sëriñ mbakke buso wane itam ñooñu li leen xam-xam jaraloon ak niñ ko doon gëstoo ak liñ ci daj soññ itam jëme ci nit ñi gën a jox gëdd xam-xam waaye itam ñuy yër tey nangoo bind wane itam taalif yitte ji mu am ci biir yoonu murit ak gëdd bi ko sëriñ bi joxoon ba wane sax bi ko sëriñ bi di tàmbali teel na lool ñi ko ñi toppoon ci ginnaaw ginnaawam itam noonu kon wane na bu baax ci jataay bi njariñul xam-xam ci biir tuubaa kon sañcub Touba wala kuy dëkke Tuuba la jiitu ci moom mooy xam-xam ak jaamu yàlla kon loolu la sëriñ bi sanc dëkk bi incha allahu xaaj bi ci des danañ ñëwaat nag ci comportement ak teggin yi nga xam ne ki ko dëkkee ak kii ñëw di ziara noonu la war a mel kon nu yem fii ba beneen jotaay incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu أرجو مسافرها بلا taarix ba mooy junneek ñetti téeméer ak fukki at yim bilee su ngeen ma dégloo tey ma dal yeete ndax ñuy nelaw seen xol yi dal seeti kuréere mbir day laaj ka xam lu mu xamul